fii jamono toll moo waral ñu yëkkati suñuy kàddu ci jamono jii waaye baaxoowuñu ko dafa di nag fii réew mi tollu képp ku dëkk ci réew mi tolluwaayu réew mi war na laa itteel loolu moo waral ñu yëkkati suñuy kàddu réew mi nag fii mu tollu ak li fi suñu borom def ci ay xéewal yu mën tàggale yu mën a tàggale ak waa réew mi ci ab coono ba noppi lu fi waroon a yomb lu nekk ñu jafeel ko kon ku mu yomb fi yow bu mu tax nga jàpp ne réew mi neex na lii fi xew nag te muy fomm ay élection ak di soppi sarti réew mi képp ku ci noppi war ngaa leeral lu tax waxoo ci kilifa diine yi nag kenn ëpp leen ci responsabilité ndax population bi li ëpp ci ñoom li ëpp ci ñoom la ñuy déglu kon seetaan waru leen te mbir mi bépp kilifa diine bu ci doxul ay jéego bis bu pënd bi wuree dana la xañ lu bari sa digg ak population bi kilifa nag bu ñuy fitnaal ak njabootam ci am pénc bu leen naree wàllu na leen fekk ca pénc ma waaye wax bu ñu ko biralee ku koy tontu waroo koo yalu kon nañuy fàttali nit ñi jikkoy naafeq yi ngir ñu mën koy moytu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne màndargam féq ñett la bi ci jëkk mooy koo xam ne loo wax du doon dëgg bu ñaareel bi bu ñu la joxee ab randu bu ñu bu la joxee randu foosé ko bi ko ñetteel mooy boo ko wóoloo mu war la réew mi nag ñépp ko bokk kon nañu yërëmante tey dimbalante ndax borom bi subhanahu wa taala neena taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan fi mu ne nak ñi nono dafa mel ño ëpp ñi dimbalante te fi réew mi tollu coow li bari xëccoo bi bari wor yi bari wax muy dañ bari jikko yu bari tàmbalee yàqu loolu tax na ku fi am njàqare ku ne sa xel dellu ca mag ñi wuy ji seen borom sëriñ si ci réew mi nag koo ci xam ne say taalibe àdduna ak àllaaxira lañu àndeeg yow war nga leen a wan la nga mane fii ci àdduna ndax alakhiré ñewagul ta mbolém ñi fi né mbolém ñi fi jaxaso ak ñi jité réew mi war nañu leen di firil waxi borom bi subhanahu wa taala moy wax né ya amanu lima taquluna na mala tafhalun. kabura maqtan inda an taqulu ma la tafaluun tali sabab yengu yengu yi ci réew mi ba ay bakkan di ci rot wax ju tebbi ku da ci bokku te fitna baxul te rew mi bari nañu fi seeni kaddu wara mëna fitna waaye dañu leen di noppiloo te aw fit aku njàmbaar lu ci ne donn ko yombul waaye bu ñu fàtte wattaqu fitnatan la tuziban alladina salamu minkum xaasatan waxlamu an allaha sadidul iqaab wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh